asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi dellusiwaat siwaat nañu ci jataay bi nu baaxoo ànd ak yéen mu jëm ci naafilay weeru koor nu di ko jële ci téere sëriñ Chouaïb bu Mbàkke bi mu tuddee qurratil ayn nu toll tey ci guddig ñaar fukkeel ak juróom benn sëriñ Chouaïb bu Mbàkke radiyallahu anhu dafa wax ne guddig ñaar fukkeel ga ak juróom benn ku ci julli fukki rakkaa bu ci ne faatiha ak alqaariatu benn yoon ak qul huwallaahu juróomi yoon guddig ñaar fukkeel ga ak juróom benn ku ci julli fukki rakkaa bu ci ne faatiha ak alqaariatu benn yoon ak qul huwallaahu juróomi yoon bu noppee mu jéggalu yàlla lu mu man dees na ko musal ci sawara dana mel ni ku woor diirub jamono jépp te dees na ko bindal tiyaaba ju toll ni limu biddiw yépp ak xobi garab yépp ak tuyaaba ju fees diggante asamaan ak suuf te bu dekkee dees na ko booleeg jibril ak mikail ak israfil ak ansrail ñu gunge ko ba tabal ko àjjana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi